bëre lu simple ñëw takk ngeen. bàyyiwu ma ko. bàyyiwu ma ko de. mais Reug Reug euh, ban relation la am ak le ministre Matar Ba. waaw ministre Matar Ba sunu kilifa la sunu xarit la tu vois kon bu xewlee tey ak surtout promoteurs yi ñoo bokk lu ñuy def mooy sunu kilifa ñun sport la ñuy def kon Matar Ba mooy ministre des kon yoon la promoteur yi bu ñu bu ñu tëggee galaaw mel ni jukkeel ka ministre Matar Ba yoon la ñun mbër yëpp ñëw teew si surtout maa ko si. ku si euh, maanaam parti participer quoi yoon la ma ñëw teew. tey rek fi mu jaar ak Eumeu Sène mooy jamono du neex ba nga uppaa jëm ko mbaa mu uppaa jëm la maam doo bëri ak moom. non Eumeu Sène sunu grand la tu vois sunu grand la am na droit bu duggee sunu milieu ñu ñëw soutenir ko jàppale ko loolu la rek mais du dara sunu grand bu ñu respecté la. bu ñu la joxoon avance Eumeu Sène. non foofu àggaguma fa. waaw ba ma fa àggee rek incha allah. suñ la ko joxoon rek la. non àggaguma fa wax loolu àggaguma fa. dafa am relation bu la boole ak moom. xanaa déggoo àggaguma foofu. non ma ne non déglul àggaguma foofu léegi ñi ma àgga nga may wax voilà mais bu ma àggee foofu ba ma waxee naa la tontu ok. est-ce que yow da ngeen am relation bu personnel yow ak moom wala. Ah, xanaa déggoo ma wax naa la ka waxaat naa la ka dama ne la bu ma fa ma boo ma waxee dinaa la tontu ok. rëg-rëg sa fu mu toll. waaw xam nga maa ngi nuyoo Pazza Ah, sunu papa sunu lepp moy ni Nicolas diko wax diko ñaanal yalla yalla naka yalla indi wat sunuy loxo ñaan rek nañ man wa dañ koy ñaan yalla sunu borom wat ko sunuy loxo wa bam dem ci njabotam wa ñew su xëliwaat lamb wa moom mo ci nekkon wa mais instant bi gisatuma promoteur mu ne ci quoi voilà lolo la ko waxatul sa combat kenn non instant bi waxagul ma kenn mais ma ngi tok nek sama ruxu di entraîné di xaar comme Bombardier sottiwul sa diggante guy gi lekk la combat la guy gi guy gi guy gi dañ koy nuyu di ko nuyu di ko nuyu di ko wax lambu la rek bu jeexee rek jéena sunu grand bu ñu respecté la bu ñu combat boole dañuy bëre waaw pare naa pour bëre ak moom. pare man li ma jaaxal gars yi kuñ ne ma ko Reug Reug ba ni ñor na. combat ba yàqu. waxoon nañ fi Reug Reug Sa Thiès ba sori ci mu yàqu Reug Reug Bombardier yi mu yàqu. xëy na dañuy am lu ñuy métti si man loolu la rek. li ma ci yow ah xoolal rek fi lambu toll. guy gi dafa am doole dafa mën a bëre. waa guy gi guy gi li may wax rek laa li may wax say moromu journaliste laa guy gi bu ñu amee combat du bëre du xeex du day ñëw daanu. dëgg la xoolal bàyyi nappaate bi bàyyi nappaate bi euh, guy gi champion la am na doole te xeex day bëre. champion bu ñu respecté la sunu grand la moo ñu jiitu si làmb bëri nag champion yëpp mais dama ne la buy bëreeg man buy bëreeg man du xeex du bëre day ñëw daanu. yow fi nga yor rek ba yow te li ma seetlu lépp mooy li ngay wax lépp boo ñëwee da nga koy lan la. waa mais. doole la wala garaaj la wala fit la. non lu la ak yàlla suñu borom jàppal ñu loolu la rek.